monsieur Ismaïla saw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay yow nga njiital conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal gannaaw kon ci tabaski la ñu jógee ren ji ban xayma nga mën a def ci euh, fête bi ak yéen éleveurs yi. waaw euh, ren daal li ma wax na vraiment euh, aussi amaat nañu ay jafe-jafe ci jur mhm. bi. ndax démb ba ñu jullee ba pare def naa tour ci biir Thiès. ak sew Xay ak côté Touba Toul yooyu mais woote naa aussi ay Sandiara Mbuur woote naa ci biir réew mi yëpp fu bari foo xam ne fii xar yi dañ fa doon dem mais fu ci nekk aussi ne fekk nañu daal xar yi des nañu fu loolu nag mu nekk aussi jafe-jafe pour sàmmkat yi ak opérateurs yi ndax boo desalee xar aussi jafe-jafe la lay indil dem ko transport yóbbuwaat ko fa nga jóge woon mais nga commencé waat encore ay dépense permanent yoo xam ne yi pour fay euh, gardien pour fay euh, ndox pour jëndaati lekk mais aussi dootoo mën a nelaw da nga leen aar te aussi maara day taali tey ñuy ragal parfois aussi tamit même euh, parfois dana ay maladie yoo xam ni tey li dal ci doomu aadama yi léeg-léeg lu mel noonu dal ci jur gi te aussi yooyu yëpp ngay ñaan yàlla pour mbumu am te aussi moo tax loolu aussi dana la tënk dootoo mën a doxi doxi soxla yu bari mais dootoo am aussi looy def hmm. kon loolu jafe-jafe la sans compter nag aussi banque yi nga xam ne jëloon nga seen alal nga engagé woon ne après tabaski bi def ko fay léegi nag lan moo ciy mooy fi mu ne tey nga seet la nga amoon yaa ngi seet nooy lijjante nooy complété pour que nga mën a fay banque ba nga tranquille mais am na aussi lu lay xaar ci jur googu comme li ma wax sànq. Mm-hmm. loolu ay jafe-jafe la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñu nemmeeku tamit ni atum ren ji amatina xar yu bëri yi nga xamante ne jaay ñu leen mooy li ñu duppee invendu lan nga jàpp ni moo ko waral ba xam du njëg lu cher li. non non c'est que du njëg bu seer njëg bu seer moom gaa amul parce que nit bu fekkente ne sàmmkat nga nga yar jur yi nekk ak ñoom guddi ak bëccëg di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan dégg nga lu war a lu ëpp at yaa ngi ci ngay daw ak bëccëg yow xam nga ne e, xar boobu seerul te boo indee ay xar nga war koo jaay noo ko jaay lu mu jarul lu muy jar rek nga koy mën a jaay te bu fekkente ne bu boobaa yow jaayuloo ko de nit ñi xar bi finalement dafay mujj lekk li nga xam ne moom mooy bénéfice bi nga ci waroon am xar bi da koy lekk parce que munoo muus mu mokk ci àddina da ko jaay lu mu jarul kon loolu éleveur boo gis xam na loolu moom li muy ñaan rek mooy gaawtu pare ba débranché wu ci xar bi ah loolu la kon yëf yi des nag lu bari lu ñu doon njort ba xam mujj naa am ni kon approvisionnement euh, Sénégal ci wàllum xar kon loolu mën nañoo jàpp nii lépp yemboon na kon. ah xar yi kay ñëwoon nañu lu bari ndax wax dëgg yàlla état bi dafa jàppale woon nit ñi pour que ñu am ay prêt bancaire. Hmm. ñu dem aussi jëndi xar yi dajale ko indi ko ci dëkk bi pour que nit ñi mën a am ay xar yuñ tabaski. waaye problème bi ca rëy mooy nit ñi mënuñu maîtriser le consommateur consommateur yi doo xam loolu moo taxoon toujours maa ngi communiquer hmm. di wax nit ñi nañu génn ñu jënd ay xar parce que lu demee nii du ren lay am problème hmm. mais déwén lay am problème parce que ñëpp nag fi mu nekk nii tiit nañ tey jafe-jafe yi ñu am hmm. léegi année prochaine naka la ñuy def pour que ñu mun cee génn. Hmm. dégg léegi nag danga gis ñi ñu abandonné daw génn bañaati ko cee dugg ñeneen ñi da gis ku mënoon a indi téeméer léegi ñeen fukk ak juróom ngay indi dégg nga ñu commencé woyofal seen loxo bon donc loo loolu ay jafe-jafe la yoo xam ni moom suur dafay am te kenn mënu koo kenn mënu ko moytu hmm. Hmm. voilà. léegi lu jëm nag ci. atum ren ji nga xamante ne tabaski bi dafa feggoog mbasum Covid 19 bi yan yan jafe-jafe dëgg ngeen ci jànkonteel. waaw jafe-jafe yi mooy fi mu nekk ni euh, gis nga ren amul pèlerinage à la ñi ñi demoon makk am amul. ñaareel bi aussi tamit rassemblement yi de dañu koo tere koon amul benn événement boo xam ne bi boo. lambalee say jur danga dem nga jaayee ko. Mhm. beneen bi mooy ay jafe-jafe yi nga xamante ne nag euh, aussi nit ñi ci la ñu nekkoon tere dañu la tere wuñ la sax yow yaa war a muytu dégg nga pour à sa bopp defuñu rassemblement danañu muytu dox yu bari yi doo mën a yenn daj yi dégg nga xëy loolu moom gis nga ni mu tënkee nit ñi da tax na même ci boy waxaala mbaa ngay jaay aussi dangay ngay muytu kon loolu maladie bi moom ñëpp ni ñu ko gisee noonu la demee ci ñëpp amul fenn fu mu bay baywul benn secteur. Mm-hmm. gis nañu tamit ci wàllum njëg li ba tey euh, Momar Ndao jiite ASCOSEN proposé woon na euh, ci réewum Sénégal ñu daal di fixé njëgu xar mi euh, ci kilo yu mu am ba xam loolu éleveurs yi ànd ngeen ci. xam nga loolu loolu moom euh, ndaw wax nag waaye ñàkk maîtrise suñu jur gi naka la demee mhm. ñun no ngi xayma njëgu jur ci qualité jur bi qualité jur bi nag mën na doon ci yàpp mën na bañ a doon aussi ci yàpp mhm. dégg nga kon xëñ na loolu bu fekkente ne dugg nañu ci loolu gis benn xar boo xam ne bii di kilos la mais moom ñu ne que nangam lay jar mu seer te kon tey li nit mënoon a jiit nga fukki junni ak juróom. Mhm. bu ñu yëggee ci PSH te ñu doxalee ko nañu ko war a doxalee kon da nga jënd loo waroon jënd juróom da nga ko jënd ñaar fukki junni. Mhm. parce que loolu dafa àndul ak suñu culture xam nga loolu culture européenne ñoom ñi nga xam ne dañu yore ay jur artificiel yoo xamante ni yi. mën mhm. nga ko yore ci juróom benn weer mu peese ay kilo yu bari. dégg nga bokkul ak suñu jur yi dafa wute trop. Mhm. da nga culture bi du benn doxalin bi du benn réalité réew yi du benn da nga te loolu war nañu moytu nga nekk ci comme suñu réew yi ngay jël exemple ci yeneen réew mhm. ñun booy jël ci ñun exemple dangay seet réew yi nga xam ne ñoo ñun ñoo bokk mhm. ñoo ñoo bokkale lu bari da nga jël ci ñoom ay référence comme ay Tchad ay Niger ay Mali ak yu demee noonu même ñooñu sax am na fu ñunu nu tane parce que ñoom am nañu ay espace yu yaatu ñun am nañu ñun tamit ga am nañ sax espace bu attan suñu réew mais suñu doxalin ci wàllu suuf boobu moo baaxul moo yàq lépp lu ñu doon def. Mhm, mhm. parce que nit ñi foofu moom dañu fay nelew gaa yi di indi ay jubaj ci suuf si te loolu baaxul. Mhm, mm. alors euh, euh, président Sow ba xam yéen tamit waa élevage secteur élevage bi euh, bénéficier ngeen ci lu ñu doon annoncé ni kon ndimbal bi leen état war a jox. Euh, ci force Covid 19 bi. waaw euh, euh, état dégagé na trois milliards jàppale ñu ñu ñu jënd ak affaire ñu jënd ak aliment de bétail. Mhm. dégagé woon ma aussi trois milliards pour que ñu jàppale que nit ñi ci biir FONSTAB pour que ñu mën a am aussi ay prêt yoo xamante ni opérateurs yi ak jula yi danañu dem di jëndi ay xar loolu aussi mu nekk taux d'intérêt bu yomb boo xamante ne bi vraiment dana mën a am njëriñ pour éleveurs eh, lu jëm nag ci euh, li nga xamante ne moom mooy secteur bi ci boppam euh, gannaaw ba ñu nemmeeku ay évolution ci wàll wi ak sax ba ñu sampee fi journée nationale de l'élevage tey ji boo ñu doon xaymal defal ñu jàngat secteur bi ci niveau bi mu toll lan nga ñuy wax. waaw li ma ciy wax rek wax dëgg yàlla que secteur bu baax la parce que ministre bi nga xam ne moom moo ko yore. Hmm. nag eh, xale la mais aussi jàngana jàngana mais aussi secteur la boo xam ne bi xam nag ko naturellement xam na culturellement mais aussi xam na ko professionnellement parce que doomu sàmmkat la hmm. dégg nga xam na ko ñu ma ko xamee même éleveurs yi buy waxee ñoom ñoom moom day dégg xam na fi ñuy waxee hmm. dégg nga moo tax échange ak moom vraiment yombal nañu ci lu bari bon donc loolu moo tax dañu jóge ci sommet élevage bi aussi waxtaan nañu ci ay programme yu bëri mhm. mais li freiné loolu yëpp mooy tey lii nga xam ne mooy maladie bi am mhm. ci biir àddina bi mais yaakaar nañu lii bu ñu ci génnee aussi danañu def ay daje restreint pour waxtaan ci lii nan la ñu koy war a mën a organiser parce que aussi lépp loo xam ne li dafay décourager opérateurs yi aussi baaxul xam naa danañu ci war indi ay proposition yoo xam ni aussi danañu ko mën a examiner ak moom ñu xool ba xam ndax loolu lu mhm. Mhm. jafe-jafe yi nga xamante ne ñi yëngatu ci secteur bi yàgg nañ ci àttu mooy lu jëm ci wàllub euh, ñàkk suuf si waaye tamit li nga xamante ne moom mooy aliment bi waaye rawatina vol de bétail bi maanaam sàcc jur gi loolu ñu ngi ci doon annoncé ay loi am ay jéego yu ñu ci defa tey jii fan la xeex bi tollu waaw loolu tamit wax dëgg yàlla euh, am na lu ñu ci euh, lu ñu ci déggaloon euh, pour criminaliser vol de bétail mais seulement que problème wol bi aussi defa nekk ci doomu aadama yi nga xam ni ñoom ñooy ñoom la affaire bii di daal parce que li ci ëpp mooy parfois dangay gis tey ci ñi nekk prison bari na tey ñu nekk prison ñoo xamante ñi la leen fa jàppa ñu tëj leen seen biir dund fekk la leen lañ leen fa tëjee xamuñu ci dara mm-hmm. te loolu léegi indi mooy nit dañu lay def defal dara nga tëba tëb rek ak kii sa kenn te loolu baaxul parce que li tax loolu baaxul mooy boo accusé nit te fekk moom deful ñu jàppa ka tëj ka sévèrement mm-hmm. ki defoon moom defay nekk ci bitti continue di lor nit ñi mhm. loolu moo tax yu demee noonu aussi su fekkee jëlool nañu la mhm. da ngaa war a euh, nga dem gendarmerie da nga ko war a wax gendarmerie ak police mais ñooñu nga leen di jox information yi nga ci am mhm. ñoom su ko defee danañu gëstu seet toppaka bañ a yàkkamte bi ñu teg loxo ki nga xam ne moom moo ko def boo ñu ko tegee loxo nag bu boobaa nag ñu kooku moom nañu ko éliminer pleinement dégg nga mun nañu ko tëj tëj boo xamante ne bi bu jógee ci loolu dootul taala def yu demee noonu mhm. mais su fekkente ne yow def nañ la dara mere nga Ismaïla wala am nga ducc Ismaïla te yow amoo sax argument yu leer nga tëb a tëb jénk Ismaïla nga ne kii lii na nga max na nga dégg nga bu ñu ko jàpp nga ne kii dafa joxe xaalis commencé wax ay wax yu ñaaw mhm. loolu tamit dafay yàq mhm. parce que pour ñu mun koo radicaliser moom Mhm. fokk ñu koy wax parce que aussi mhm. euh, force sécurité yi ak défense toujours nga gis ñu def ay démantel ay réseau yoo xam ni kenn foogul woon ne ñoom ñooñu mun mun nañu ko gis mhm. bon donc euh, loolu lu ci jara bàyyi xel loolu lan moo ci pexe bi ndax am yéen a ngi def sensibilisation ci seen naataango yi waaw mais loolu xam nga loolu sénégalais moo mel noonu parce que même bu fekkente ni nit mos mos na am problème bu mel noonu yow boo lu xewaat rek dangay naan kooku la de or foofu nit ñi ñoom ci seen jëmm bopp ñoo war a changer parce que dañoo dem dañu ñun dañuy conditionner justice ak force sécurité yi parce que mm-hmm. ñoom aussi dañuy dem ba dañuy jaaxle parce que boo lee boo boo toomalee kenn mënuñu def lu dul ñu teek ko gëstu ko te hmm. kooku bu ñu ko gëstoo fekk du moom ñu bàyyi ko keneen ku ñu jàppat dootul am njëriñ. Hmm. bu fekkente ne defeere nañ ko ci loolu fekk moom defu ko aussi tamit loolu dafay indi ay problème parce que ki doon def musiba bi day nekk ci bit continuer di di rey nit ñi. Hmm. donc loolu moom moo tax lu ci bari il faut que nit ñi ñu xoolaat li nga xam ne moom la ñuy def. waaw mhm. ab ah, ah, président bu ñu tëjee ba pare dama bëgg dafa fàttewoon benn question ci français mooy proposition Momar Ndao bàyyi ñu tëj ba pare nga ñëwaat ci français ci loolu justement waaw ah, d'accord voilà Ismaïla Sow ñu ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup maa ngi leen sant bu ma fàttali ni kon yow yaa jiite conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal